yàlla dafa def liggéeyub Serigne Touba bi di dox ba agsi ci moom ci bunt boo xam ne ni ma ko doon waxee léegi rek moom buntub xam-xam la moom borom xam-xam la jàng na tase naa mbindum Sëñ Touba te Sëñ Touba moom képp ku yàlla leeral sa xol boo tasee mbindam du duutoo ko werante mukk ci àddina xanaa koo xam ne yàlla defal ci yow leeru leeru xam-xam ci sa dënn waaye ku yàlla def leeru xam-xam ci sa dënn boo taseeg mbindum Sëñ Tuubaa da taxaw te xam ne mooy daj dëpp gi ah, yàlla def nag mu am ay taxliqaat yu baree bari ak ay tafsiraat ak ay sharx yu mu def ci xasaytu sëñ bi bokk na ci loolu ah, ah, jaawartu jaawartu bil furxaan xam nga ne mi ngi nii mu def ko tudde ko tarixul jannati yoonu àjjana tey murit yépp xam nañ xasida gi ñu wax ne ku ko mokkal deesu laaj ci bàmmeel te da texe kuñ ko suulaale danga texe moo tax mu tudde ko tarixul jannati kon muy yoonu àjjana mu def ci ay sarxu yu am solo def ko ci arab nag ndax dafa bëgg arab yi nga xamante ne nii ñi ngay jullit si ci jàkka ja ñu xam ci sëñ Tuubaa leneen ak yeneen jullit ñi te yamul rek yii muy def nii yamul rek di ko def nii ci ci arab kese waaye bu ko defee ba noppi sunu mbokki soose yi nga xamante ne ñoo koy topp ñëpp daf koy jël di ko leeralaat ci soose bi mu ci jógee mu jàll ci geneen xasida goo xam ne jibril mikail asrafil asrail ak ahlu badrin an anhum la ko sëriñ Tuubaa tënke muy bii moom itam mu jaar foofu ak moom lii lépp nag bi mu koy def mësta taseeg doomi sëñ Touba mësta taseeg sëñ sëñ Touba mësta gis xalifa général des mourides waaw ci mbindum sëñ bi rek la yem engagé wu di ko def njëkk muy jot euh, euh, am euh, ak jokkoo ak taalibe yi ak daayira murid ba mu ci jógee mu jàll ci geneen muy xijaabu daara ni fii taxaw si mina naara ni nga xam ne addiraxul waaqi la ko tudde nga xam ne muslay gu rëy rëy rëy la mu jaar foofu ak moom liggéey ci liggéey bu rëy jaar na itam ci xasida koo xamante ne nii murit yëpp xam nañ ne kàngam dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg moo ciy wax muy xaatimatu munaajaati bel xatti gaa yi tudde ko caatam xasaay di moom itam jaar na moom foofu jaar na itam ci rabbi karimun ak minal xaq xam ngeen ne minal xaq alxuraan rek la ci Sëñ Tuubaa di wax xasaayit gi ñi nga xam ne dañuy topp waxtaan yi ñu def ci xasaayit xam nañ ne xam nga sëñ Tuubaa moom day def lu mu indi lu nekk rek bagaasam yépp luy luy tax a nit a texe la am na xasaayitam yoo xam ne boo ko mokkalee texe am yoo xam ne boo ko gisee texe am yoo xam ne boo ko déggee texe am yoo xam ne buñ la ko suuralee nga texe gii di minal xaqi dañoo wax ne ku ci teg sa bët da texe waaw jóge na ci jaar ci geneen xasida goo xamante ne ni ku am solo la nga xam ne daanaka mën naa ne la murit boo fëgg bu ne xam na ko muy muwaahibu naafi waaw muwaahibu moom ëpp naa bañ xam moom moom moom ëpp naa bañ a mii ëpp naa bañ a xam mu di xasiide goo xam ne tagg gi ci sëriñ Tuubaa tagg yonent bi sallallahu alayhi yéeme na bind na ko ba mu àgg limu bayit yi di euh, di limu laa ilaha illallah tudd ci yonent bi benn yoon turam ay jikkoom ak i meloom rek bañ na ko ba xulafa urashidoon yi nga xam ne ñoom la def ci biir muy Aboubacar ak Omar ak Ousmane ak Aliou biñ dikkee seeni melo ak seeni jikko la ci tudd waaye ndegam tuddul turu yonent bi du ci tudd turu keneen muy xasida bu am solo boo xamante ne nii ah nit ñi yëpp nañ ko waaye yëpp nañ njàmbaar yëpp nañ fonkal dëkk mi ngi nii ah imaam itam jaar na ci xasida gu ñuy wax yaqiini ilal jannaati moom itam noonu la ci def yii yëpp sarfa ci def yëpp ci arab la ko def ndax bëgg itam jullit ñi jot ci bu baax a baax ndax xëy na noonu danoo juddoo ci murit nampe ci ba nga xamante ne ne xëy na ñun am nañ fuñ mën fuñ naan fan a naane waaye am na ñoo xam ne amuñu loolu. kon xasida yi lenn la ci yi nga xamante ne liggéey na ko ba noppi nag ñu xam ne nag maanaam mu fassirul Qur'an la dafa tafsir Qur'an ci soose daf koo tafsir ba mu àgg ñu muul ko te ci biir. tafsir alquran yooyu muy defit nañ xam ne mi ngi tafsir quran yoo xam ne am na ci ay référence yoo xam ne ci ayat quran yi ci ni ko sëñ Tuubaa gisee ni la koy indee ci biir ndax bëggul rek mu doon tafsiru xurtabi yu wala jalaali yu wala ibnu abbas wala keneen ak ndax ñun dañoo bokk ci yàlla ñu sédd te sédd nañu ay nit kon dafa am ay gisin yoo xam ne ci alxuraan tam daf ci indi gis-gisu sëñ nga xam ne mu ci noppee bu soobee yàlla ci boobu boobu arab la koy def sax nga xam ne nii quatorze volume la war a doon waaye boobu bokkut ak bi nga xam ne moom la moom la euh, def ci soose ba nga xam ne boobu imprimé nañ ko ba noppi ak lii lépp nag ñu xam ne alxames bu nekk mi ngi am programme boo xam ne mi ngi ciy waxtaane sëñ Touba ci rajo Gunjur ci euh, ci Gambia maanaam Gunjur FM FM ci Gunjur FM alxames bu nekk am na ci programme di ci waxtaane Serigne Touba ngir sunu mbokki soose yi nga xamante ne ni xëy na dégguñu wolof te li ma leen wax léegi rek audience am Gambie la audience am la audience fii ci Scandinavie bi la waaye Germany ak euh, England kon am na audience bu rëy rëy boo xamante ne ñu ngi koy topp ndax 511000 euh, yoo xamante ne ñu ngi koy topp ci YouTube am na ko waaw te moom itam. Euh, mi ngi waaj incha allahu ngir tijji télévision boo xamante ne ni Smiling Coast TV pour liggéey yi muy liggéey mu man di ko jàllale ci télévision yooyu lay doon ñu xam ne nag liggéey bi mi ngi ci dëpp ñaar fukki at ak nangam ndax 2001 la ko tàmbali nee na di ko def ba yàlla def bi ñu amee ak jokkoog moom ñu fexe ba 2019 mu jóge fii dem Touba dem seet sëñ Muntaxa bi mu demee itam ba sëñ Muntaxa dalal ko ba euh, ñu wisiteel ko dëkk ba ba noppi sëñ Muntaxa wax ko ne ko lii mooy dëgg dëgg dëgg liggéey bi yaakaar naa yàgg ngeen a dégg sëñ Moustapha Saliou muy wax ne sëñ Touba nee na murit dëgg du dégg wolof daa mel ne loolu tàmbali na ci moom mi kon pàcc bu rëy rëy la ah kon ñaar fukki atak ak ñaar a ngi nii kon ci ren mën nañ ne mu di ci liggéey waaye wax nañ ne lii mi ngi ko tàmbalee woon ci xasida goo xam ne rek euh, ñaari taalibe ñoo doon wax ci ci xasaayit yi rek ba mu yàgg kenn ka may ko xasaayit ga muy muwaay bu naafi mu jël ko teg ko ci armoire am mu yàgg fa lool ba nga xamante ne nii dem na ba xaw ko fàtte sax waaye benn bis rek nee na mu toog jamono joo xam ne dafa mel ne xolam dafa neexul muy wëndeelu di wër di wër di wër ba xel mi dem ci xasaayit ga mu jël ko yër ko foofa fa ko mbirum sëñ Tuubaa duggee mu tàmbali nag di ci xalaat di ci liggéey ba lii lépp am ci muy koo xam ne na kon nañu xam ne nun murid yi nun euh, noo ko war a jàppale xam ne lii muy liggéey nun noo waroon a bàyyi suñu lépp dem jànge ba dégg làkki àddina bépp jàllale ci sëñ Tuubaa ndegam nag am na koo xam ne mi nu koy defal ci wet ah macha allah nun nag kon noo ko war a euh, taxawu ba nga xamante ne liggéey bi mu liggéey jullit ñi danañ ci jot te yaakaar naa ne dëkk bi ñu nekk at mu jot mu nekk dana fi ñëw ay yoon yoon te suñ mbokk yi nga xam ne ñoo jógee Gambia ak Sénégal xam nañ bu baax a baax a baax moom mi fu mu fu mu toll ci xam-xam ak yitte ci xam-xam kon loolu rek ci gàttal lañ bëggoon a jottali rek ci imam incha allah rek jox ko kàddu gi ndax lii day loo xam ne dañ ko bëggoon a leeral jullit ñi ba jullit ñëpp xam ko. ba bu ëllëgee bu ñu wootee ñun ñëpp ci loo xam ne dana ko soutenir ci liggéeyam bi ah ñun ñëpp ñu taxaw ci te xam ne sëriñ Touba liggéeyal te ah, Serigne bi kat lim wax ci ku ko liggéeyal ndax ah, am na kenn ci mag ñi ku ko mas a fekk mu jàpp ba noppi di jëfandikoo jàpp ma mu laaj ko mu ne ko ah waaw damaa yor jëmm joo xam ne su ma ko mënoon a xar ñaar eh, jenn ji di liggéeyal moroom ji danaa ko def. loolu nag kon day wane liggéeyal sëñ Tuubaa nu mu toll ba moom ci boppam mu xamal ko ba di ko defal boppam kon nag war nañ cee góorgóorluwaat bu baax a baax waxoon naa léegi ne euh, wax na ne euh, xafistu mazina anit dafatiri fala takun an xidmati bi fatiri xam naa loo xamante ne ne yàlla xamal na ma ko loola rëy naa rëy màgg màgg fa yàlla ba kenn mënu koo bind ci diggante ñaari feggu kon nag li ma la mën a wax daal nga xam ne bu ma la doon résumé loolu mooy falaa takunan xidmati li faatirin yow daal dawal liggéey li ma rek waaw kon nag ah euh, ci gàttal kooku mooy imaam mi ngi nii ñu di ko ñaanal fan bu gudd ak wér-gu-yaram njaboot gu barkeel ak ngërëmal sëñ Tuubaa ngërëmal borom mi mi liggéeyam kon ñu jox ko kàddu gi incha allahu xam naa dana wax ak suñu mbokki soose yi ànd na ak assistant boo xam ne mooy imam Makalu moom itam di jàmbaar ci dëkk bi bokk ci ñi nga xam ne ci diina lislaam ji dañ fiy liggéey di ànd ak ñun ay bis yoo xamante ne ku sëñ Ablaye Diop doon waxee léegi ñun fii dëkk bi gàmm ak laylatul xadar ñun ñëpp ñooy bokk toog daayira yi fi nekk yëpp waa kër Alaaji Malick ak Cheikh Omar Fouti ak ñëpp ñooy bokkandoo toog waxtaanandoo séddoo lépp séddoo dépense yi seddoo njàng mi séddoo lépp loolu mooy tradition wu dëkk bi te loolu mooy li nga xamante ne moom la ñu sëñ Tuubaa digaloon ndax fa kullu wirdin yuridul murida li xadratillaahi walan yahida sawaun intama ilal jilaani aw intama li ahmad tijaani aw xam nga noonu mu ko waxee ba mu àgg ndax iskulum xadan ala sawaab yi noonu ma ko waxee te waxoon ñu itam ne falaa tuaddu man raaytum faahu yuxriju laa ilaha illa allah ku ngeen gis gémmiñam baat laa ilaha illa allah di ca génne bu leen ko defum noonu kon duñ guddal nañ jox imam di ñaan yàlla suñu borom mu defal ko tawfiq الرحمن الرحيم نبدأ بما بدأ به شيخ الخديم كتابه مواهب النافع بسم الإله ينمو لهائي بلا مناهي ولا انتهاء حمدا لربي خير مربي قد رم قلبي بالاقتداء بمول كنت نفرو السلام عليكم ورحمة الله imam ne mu ngi nuyu mbootaay bi yépp entanga kuwoɗiyama nin surwa kan mu te ba mu mu ne moom si boppam daanaka si kalaama wolof la bëggoon a eh, tijji waxtaan bi ndaxte moom yaayam sénégalais la waaye dafa nekk ne wolofam moo setul mbi ala tentula baake mi yalon ko a yen nootindi hani fo nin sirin tubaye ñooƴee mu ne mu ngi sant borom bi nga xam ne moo ko yombalal yoon bi ba mu mun a gisanteeg sëriñ Touba. sëriñ Touba ni min koye ko ama moy ama longo man tara balooreŋ mu ne sëriñ Touba képp ku wax ne dégguloo ko mbaa gisuloo danga nekku di dund. sëriñ Touba a moyo aniŋ a longo wo be ate Serigne Touba faŋo le bulu. mu ne Serigne Touba gis ko. mbaa dégg ko loolu mu ngi si jëmmi sëriñ tuubaa si boppam. ntawuluta Gambia le. mu ne moom Gambia la juddoo. kubalo yaa fo ñaami manta fen jama folo oto kote ke. comme nu ko Serigne Balla nettalee fii rek du si du soriwaat si loolu. bi almaameyaa la Sweden sañi sañi mu wànnin feeñ. mu ngi dëkk Sweden fii di fi jiite nekk fi imaam si ñaar fukki at ak lu weesu. ganna karaŋo ke poŋ jiita nene maŋ si kaŋ na alifaalu dooyaa nene maa ke few mu ne jàng na be mottal aliwaam musuta toog suufeel benn kilifa wayaatin na moomu mun na alifaalu ti ñeebee la buuñaa moo tax bépp kilifa bu nekk rek daf leen jox seen cir bari mbe ñiŋ 21 century miŋ kono mbe naa meŋ fo la ale doo bi yaasa ke ale taaliŋo ti mu ne waaye si jamono bii ñu nekk nii lii mu bugg a waxtaanee xëj na dinañ ko déggee neneen ndel karandim bandi wala na almaamiya kono jàng mu ne moom bu mu jàngee ba pare si biir bu mu nekkee imaam fii si Sweden lun doo nga moolu moy bi diyaa moo la jaamee nga kono mu dégg nit yi di waxtaan si biir jàkka ji si biir jumaa ji si la dégg nit yi di waxtaan mu funtita doroŋ i ko al imaam faŋo ñiniŋ kaa moom bu mu fëllisee rek ñu ne ah imaam ngi a ngi nii laaj leen imaam ko i be ɲininkala minɛ la mu ne leen lan ngeen may laaj mu kelen bi ye min k'a fɔ a ye ko Sadio mu ne am ku ñuy wax sa ko ni min y'a i ka arjana le mu ne fekk kookoo ngi yore woon yore woon benn xasida Serigne Touba ne lii képp ku ko jàng da ngay dem arjana janni won neneman sirin tubala safero je nenema la fenne ya fama min safe nenema je janni wolongo be sila mu ne te balaa bés boobu noonu moom dem na jàngi waaye musuta gis téere Serigne Touba musuta ubbi téere Serigne Touba. kabirin Sadio Kaye woo fon ko Sadio ko he bari fana Moussa Kurano kara ita jahannama. mu ne kooku bu mu waxee loolu mu ne ko ah yow li ngay wax rëy rëy na ndaxte nit mun na jàng kaamil bi sax. yàlla na mu si moom mu dem safara sajuka koñe ko ye wole foy ko Serigne Touba la ni akare kata arjana la mu ne kooku ne ko a ah, lii de noonu lañ ko waxee ñu ne képp ku ko jàng xasida bi dangay dem arjana a koñe ko a fele nga di la ata mu ne kooku noonu la ko joxee loolu may ko ko ne la jox ne ko jox naa la lii may naa la lii nga taabulu woo dulaato ma taabulu kayitan samba arjana le mu ne bu mu ko jëlee si loxoom jëlu ko woon ne lii daf may yóbbu arjana de nga taabul pour ñi kama kasaaju ka boña kana je ko nga doyaale mu ne mu daf ko jël pour cëral ko ko won ko ne tuutelul ko nga kitaaboo ñin taa wala ñaama maa yele fango kaa karan mu ne noonu la jëlee téere bi ubbiwu ko sax pour jàng ko ala dina computer kan na soo kono mu ne noonu la ko tegee si kaw ordinateur bi si kër ci kër gi ay waati jànke je mu yàgg fa lool nag lu ndoom be sirim la mu ne mu am bés mu ngi toog di bind mu kono be faari fekk mu ngi biiram a ngi fees man suura kodi la soxlawul xaalis na dimbaayal man toora soto te njabootam amuñ benn jafe-jafe bari niyo si rakkat i kaamira ku baale keta na mi yaalum foog bulandi waaye mu amoon naxar lool ba nga xam ne moom si boppam xamut lana ko teg loolu bii ngaa lon ko Serigne Touba la kan sañoo tag tag kaa fo ñiŋ kitaaboo karam bii la nga woo lon mu ne léegi la xam ne Serigne Touba moo ko doon teg teg naan ko jëlal téere bii nii. nkomba tungana Serigne Touba la ñin kitaaboo tay ko a kammoo samba arajana bari naa mante samba arajana mbe nii toro min ko naa wo bon kamba mu ne noonu la jëlee téere bi wàcce ko ne téere bi ñu ne képp ku ko jàng da ngay dem arjana waaye lii bu ma yóbbutee jana tamit naxat bu ma nekkee nii yàlla na ma ko génneel teggil ma ko moo man Serigne Touba moo man eh, maanaam Samba Serigne Touba kan Serigne Touba la fango ye fango a fango ah, tànnin na. mu ne moom kenn omatu ko yóbbu ko si Serigne Touba waaye Serigne Touba moo ko feeñu oo ko si boppam. ma kitaaboo yële nii be toora de. mu ne mu ubbi téere bi mu ngi am naxar boobu noonu. nta moolu ti miŋ ye a loŋ ko na maaluña na eh, eh, karamu loota baake kaŋo kaŋ baake le nka kaŋo nooma baake le. mu te moom jànginam dafa. wéeru si làkk làkk moom jànginam xam-xamam si loolu la weeru an ɗum aɗa yaajele ko siriñ yafaale ñaamin kulliyatul luga al arabia qismi sahafa wal ilam jamiatul azhar ijazal aliya nga moo soto wole to mu ne te Serigne Balla comme nu mu ko waxee nii diplôme yu nga xam ne loolu la amee mu ngi ko amee si xayroo foofu noonu nga kitaaboo ñu yeele mu ne noonu la ubbee téere bi pour ñin kamma asi tooro bon kam ma fa samba arjana bari mbe min kono awo bon kan jee fam waaye mu ne naxar bi ma am nii maa ngi ubbi téere bi pour mu teggil ma naxar bu ma am noonu si saas yooyu noonu waxut ne sax pour mu yóbbu ko arjana de waaye naxar bu mu doon dundee rek la bëggoon loolu teggi ko nene man taa tuuba bari ngaa too mooy le te musuta dem tuuba waaye mu ngi dégg turu tuuba tamit ma kitaaboo yee le noonu la ubbee téere bi kitaaboo folonga min ngi yewolum bismil ilahi yanmuluhaayi bila manahi wala intihaayi mu ne noonu la gisee eh, kalima bu njëkk bi bismillahi yamulaahi bila manaahi wala intihaayi hamdan li rabbi xayran murabbi wa kalima bi waxee nii si xasida bi a kamunum fee ko mbe duniyaa doole kono man tara na buŋ faŋ kono mu ne mu mel ni dañ ko yóbbu si beneen àdduna nekkut sax si biir jëme e, néegam mbe min karaŋo kaŋ a fa walla nini maŋ arabu karaŋ faŋo jele saa si mu mel ni musuta dégg làkki arab musuta arab mu ngi koy soog a gis noonu ne noonu la toppee téere bi si saa si mu jàng téere bi yëpp jeexal ko ŋàllandim fu ni tantaata taaman taamaŋo la mu ne bu mu paree mu tëj ko teg ko génn dem doxantu ji naata muruŋa ka ŋa karaŋ mu delsiwaat ubbiwaat téere bi jàngaat ko ba mu jeex ŋa loŋ jeletu ko sëriñ Tuubaa naatan kan ne pour aka miŋ fo ŋa fo moolu mu ne si la xam ne sëriñ bi dafa ma feeñu ñëw si man pour lu muy jàngale ma jàngale ko àggale ko si askan bi ngasafe wala ñaama ka kata ka keni woodla woodu pafek pour momum arabu karanaɗi sa karanno mu ne nii la tàmbalee téere Serigne Touba bi di ko bindee si arab pour képp ku nga xam ne arab la tamit mu dégg lan la Serigne Touba di eh, jàngale mu dunta Serigne la ɗo kookono wala ñaama wo kitaaboo la karoo la mu ne nii la tàmbalee si xasiida boobu la tàmbalee liggéey Serigne Touba mu taata mu dem Gambia moo doolee magaloo am ku fa defoon màggal mu dem si màggal gi. naa tara Serigne Touba la kitaabul belaare mu fekk téere Serigne Touba yi tamit ñu leen tasaare foofu noonu. min ka kitaaboo ñi tandi ay kayti kilim bonda ko ñi hing Serigne lay ñi di la foññe wala ñaam am Serigne Serigne laa ko jox. mu ne mu fekk ka ku doon jaay téere kooku tamit génn benn xar si biir téere bi ne ko am sëriñ bi jox la aman lom anene man je anene man lom ama lom mo mosi ba bari loota doron ay kayitu bonda ko ñaa fele sëriñ la indi mu ne te kooku xameewu ko fenn musu koo gis waaye dafa taxaw rek kooku génnee kayit boobu noonu ne ko am sëriñ bi jox la nga tara wo ma fanan mafatihu dunia wal axira bee le baa kon dunia caaboo balwoo mu mu ne si kayit bu ndaw boobu rek mu ngi fa fekk mafaatihu dunya wal axira si kayit bu ndaw boobu noonu rek kayitola kuwoyin kontanle fo ŋa ke kitabo ti ŋa tola n ka fa ko raw na katu worai kati na kay na kayitindiŋo la ñiiña ŋa tola wolla mu ne si kayit boobu noonu rek daf ko jël moom mu ko to téere ñëw tuddee loolu raw katu wa nay katu mbe wo kela waato min na maa mira konsita tuuba mu ne te si jamono yooyu noonu foogutoon ne sax dina doon musa teg tànkam biir Touba. bari wo magaroo tugee Serigne Touba ma mari naata jee. mu ne si màggal boobu noonu benn si sëci Serigne Touba yi ñëw teew teewe woon fa. yéen naa itam di ñëw la mu laataa kontoon. ñu wone la kooku moomu mu nuyonteeg kooku noonu. yéen kili ko nga tan danku Banjul la office tugee la mool mi lu bi noonu lañ ko ooyee ne ko mu dem uyu si capital bi Banjul foofu noonu. n'a taara o dinkira to la n y'a ye serin tuba la kitaabo ya kitaabo be jurumurin birin ton fo ton kon mu ne bu mu fa àggee nag gis téere Serigne Touba ay xasiida néeg bi yëpp fees ak loolu. Hmm? tënkee saabaa dañ ba séeréer. fekk moom moo leen jiitu woon toog nag di leen xaar. kabirin eh, eh, eh, Serigne Touba ma ma ko doon na. mu ne bu setam boobu dugg see rek noonu la jógee pour nuyu wanteeg moom a yemmutan daba kunkuŋota ko ŋe sii moo moomu muridoo ti moo moomu siriŋ tuubaa yeloo ti i maŋ ñaŋ wuli lay naa loo mu ne kooku noonu la basee mbagam ne ko toogal ndaxte képp ku nga xam ne kooku dereti Serigne Touba la kenn du ko taxawal pour ñëw di ko nuyu. ite ñeenta si la ntolu nga ne kontoon. yow danga nga war a toog ñun ñu ñëw nuyu si la. wàllu ñaaj yow ba téléphone bi nga yow foo ñëw. mu ne keroog kooku bu mu ko waxee loolu rongoñam bi sax dañ tuuru woon. ala kulli Serigne Touba Fouta kañ na ñaama. mu ne lii moo nekk yoon bu nga xam ne Serigne Touba noonu la agsee si moom. naata muru nan Sweden jaam. noonu la dëpp si waatee Sweden fii nii. man na doo koo continuer. bu continuer waat liggéeyam bi. ala la maa koy rokangam fan su radio station soto Gambia. si kàttani ak ndimbali yàlla fekk mu ngi am radio station boppam si biir Gambie. maadaama ntele taamu radio ti aɗum sirin fuladan kane woto sirin bitala o radio tolle mu ne comme mu ne rajo bi man maa ko moom si dimbali yàlla kon Serigne Touba dina dugg si rajo boobu noonu o radio aramisa o aramisa fon fen fo Serigne Touba la kuwoto ala kitaabolu to moo tax mu tàmbale ko depuis boobu alxamis bu nekk séeré eh, eh, téere Serigne Touba xasida yi lañ fay eh, firi di ko jàngale bari Serigne Mamari min naa benta Banjul wo sango fekk seetam bu mu dajale woon ak euh, seeti Serigne Touba bu mu dajale woon ak euh, moom Banjul. ko Serigne taalibe kile ne soto man den koolom mu ne kooku moo ko waxoon ne waaye Serigne bi musoon na am benn taalib bu nga xam ne tamit soose la. a ko Serigne ko i ka min fo i ka min safe n tɛ ma suruwa kan mo ya ɲama du man arabu kan fana no maalum bɛ ɲini lɔn na n'o ɲaadi n bɛ n la n'o ɲaadi dɛ. kooku ne ko kooku musoon na wax sëriñ bi ne ah yow de sa téere yi ngay bind nii man dama déggut wolof soose rek laa dégg te téere yi ngay bind nii dama xamul naka laa koy mun a jàngee maa naka laa koy déggee ba mun koo njëriñoo ko siriñ kaye ko noomay alamata dorom moo binaa lundoo ba la nakkumoo folaali alifaŋola kaŋo mu ne ko na nga taxaw nga topp yoon bi bu soobee yàlla dina am kuy génn si yéen ki nga xam ne mooy leeral yoon bi maa fonte mu ne waxut ne moom rek mooy loolu. bari mu bë bari mu bë woo siloo le nooma la. waaye mu ngi wax ne yoon boobu lay topp. sëriñ ni min jàmfataale jàmfataale bara be sotiyaare la le. mu ne Serigne Touba képp ku ko sori yaa sori loo sa bopp waaye nga xam ne ku la jegeñ la lool. andu ni yàlla siloo ma te man taa bataa soto te képp ku nga xam ku xam fooy teg sa tànk topp yoonam bi doo coono doo sonn. lu mu min na Serigne Mountakha yen kuma ni katan dan ko ala mbijam mu ne keroog bu ko xalifa bi wooyee sëñ Mountakha fekk mu ngi suweet fii nii. pour nga taa taalibe le min fo ñe ko ñe ko i se tigeto i se tigeto sa la kiwito mudun din la pour yeta mu ne fekk taalibe ne ko soo jëndee sa billet nga yónnee ñu receipt bi fii nii ñun suñ bopp dinañ taxaw loolu taaliboo mën na jiboo la kuliyaa ni nga la feeyaalo yi tolu maa la min bijee mu ne fekk taalibe yi xamuñ moom poosam lan moo fa nekk ndax diis na ndax oyof na nte ticket to sànnan o fekk heure boobu noonu du doon mun a jënd ticket mbije nga foñ balon kay ko am bi ko jibe dal baw man la fi nga fay kon taake la <laughs> mu ne si loolu la waxoon Balla loo ne ko ah mbir bi dinaa ko seet ndaxte bëgg ko wax ne léegi léegi nii duma doon mën a jënd billet. Al Serigne mu ne fii ñu déglu fi Serigne Touba. mbije tili fulanjangu maroko e alayni yen kumandi ko ñimbe free ticket la pour yeta maroko mu ne mu nekk fa si élection yi Morocco Airlines si boppam ñu woo ko ne ko dañ la bëgg a jox billet pour nga dem Morok moolu yanni minnu taata ye kilim be kono ye minnu fana toon bon mu ne te foofu noonu am na ñu nga xam ne loolu ñooñu mun nañ koo seede fii nii ndaxte amoon na ñu ñu si taanoon tamit ngaa fo balan kaye ko a ah, silande siringila siloo parayta la a ah, butun itole pocket moo ne dina kolo dina silanga taa i maa bàyyi mu ne noonu la waxee sëñ Balla ne daa sëñ Touba ubbi yoon bi de yoon bi taxaw na fu mu toll nii daal maa ngee dem ntaata maro ko kabiri maro ye eh, eh, eh, dulaali na suuto fulanga wala ke mu ne bu mu demee Maroko am fa ñaari fan ñaari guddi e koñe ko silan ka bojjan kata duniya dawo da mbe firi tigeto diile la andun ka boy bita damin kamurun sweden bo fanan tigeto diile mu ne bu mu àggee Morocco am fa ñaari guddi ñooñu ne ko léegi jógee Morocco fii tamit fépp foo bugg dem ñun suñ bopp dinañ la jox gratuit billet ba pare tamit soo waree dëppati waa suwet ñooy fay sa billet boobu tamit ŋa tike to taawal ñaama n taata ka taa n danku la tuuba mu ne moom it bu mu jëlee billet bi noonu la jubalee tuuba dem wuyu je xalifa bi n ko haani kun kiliŋo ti taa la bari n taata ŋa na moolu taa gambiya nii bee taata ka tuuba mu ne moom it mu ne man cong duma dem tuuba waaye noonu la wàccee gunjuur eh, dëkkaam eh, ànd ak mbokkam yi ne moom kese du dem uyu kilifa eh, xalifa bi waaye lu du day ànd mbokki sooseem yi n jannin ka eh, morke ba fango je mu ne bu mu demee balaa muy gis eh, eh, sëñ Muntaxa yen samba kitaabu bu ngoto ñu yóbbu ko si téere da daareel kaamil ala jibe moom yaa lon ko a lafita pour ka karan ka feŋol karan ni yaa dundi daaru kaamil a be kela ñaadi mu ne ngeen xalaat ki nga xam ne kooku xam-xam lay doxee nga ñëw dugal kooku noonu si téere xam-xam kooku nga ko nga xalaat kooku naka la fay mel fɔlɔfɔlɔ bere ŋa kuwolu yen ko ñin du ñin nomu jama le ñunu safe i ko ñe ko siriñ tuuba le ñunu safe mu ne moom noonu la commencé yéeme laaj leen waaw lii kana bind lii ba bindee moo bind lii moo min na baluwoo sanji tan worow la nin domanden mu ne ki nga xam ne dundam yépp juróom-ñaar fukki at ak lu tegu woto moo fula le te kon kooku ñaari nit la jaatoolum anin niyo kon jëmm la ak lu ñuy dundee jaato niyo bi yéele jannin jaatoo binaa la mu ne kon amoon na dundin balaa jëmm ji ñëw jaatoo naata niyo yaa fu a tarata kono waatindin jaatoo continue ta kaala balu e niyo continue ta kaala baloo ke hani jaatoo taata mu ne kon dundin boobu moo continuer même bu jëmm ji ñëwee yaram bi ñëw demaat tamit bàyyi fi dundin bi jëmm ji mu nekk di dund di continuer kabiri nga karamu maa kanaa fa luŋu min nan dunta daaru kaamil mu ne depuis keroog moom bu mu tàmbalee aliwa be keroog bu muy dugg biir daarul kaamil wallun ni nga lon ko momo ka birin alay adama dada kana fon be bimin kono adama dingo kun kilintige mi e safara ko ko silin tuba akanya allahu akbar mu ne keroog la seede ne amut bindeef si kaw suuf depuis maam adama be tey si xeetu mujj yi amul kenn ku musa bind ku tolloog Serigne Touba ika ika ika ika foko iko ken laysal xabaru kal muayana kibaaru man ka koy ñaay min mu ne comme nu ko waxee laysal xabaru xal mu ayana waaw ak loo ko wax wax wax nekkut comme nuñ ko nuñ la ko waxee waaw Serigne Touba ye min ke adamadenw insaan di adamadenw taa kela no mu ne bu fekkee Serigne Touba danga ko bugg xam du yaram bi rek waaw du jëmm ji rek waaye dundin la lu ñuy dund ndaxte doo ko mun a xam si si si yaram kabirin duntan lota jengaji be wodin kirato ngamin lon nun sirin tubala koto ngamin mira nun sirin tubala koto ngamin hame nun sirin tubala koto wo be keta kense wala de sai ngakku kutoro soto mi mu ne keroog bu mu taxawee daarul xaamil gis-gis bu mu amoon si sëñ bi soppeel bu mu amoon si sëñ bi ak lu mu namoon si liggéey señ bi keroog dafa mel ni moom dundinam deful dara keroog la xeeb lépp waaw keroog la xeeb lépp nsita je nga kool jibe dulal be itandi na je mu ne fa di xool liggéey Serigne Touba bi ñu won ko liggéeyam bi yépp Serigne Touba na ko kamalta je ñaadiile tumo min na nga sa eh, fitiro sali Serigne Muntaka naata e fitiro sali eh, mool sali ndi fitiro banta doron ala loofulo sali ala naafilo ka fo ka ban a siita doron e ko imam Sidi Diané nayi danko Serigne nayi danko Muntaka mu ne fa la nekkoon ba daanaka tumis dugg si sëriñ bi ñëw ju jiite julle timis bu ñuy pare rek noonu lañ ko wooyee ne ko nga ñëw nuyu eh, uyu sëriñ bi naat nga buloo di yàlla ay nga kontoon mu ne mu ñëw nuyu ko jox ko loxo ay ñinin kaa sëriñ la kóola ngaa jëñaadi da nga kóoli jëñaadi le mu ne mu tàmbale di ko laaj la nga gis ci sëriñ bi nga itandi ala ko nga min je ate fango kay ko siringine natante tarayya fango bari bira natante tarayya fango itandi na min na wolum ay min nu safe mu ne ko man de li ma gis moo nekk ne sëriñ bi moo ma ñëw fekk si fi ma nekkoon te sëriñ bi lim ma wan moo nekk ne liggéeyam yu mu doon def loolu la ma wan ubbil ma yoon boobu noonu andum a yembulal sëriñ Tuubaa yembulal ko nga nga saataroo ki ala saferoo la kay tandi mool la kamine fo te daf ko won te bàyyi ko tamit ne ko nga wone li ma liggéey ak li ma bind nga wone ko tasaare ko a koñña koye tooña fo sirina diyamo man dan kasayi ɗo dammal bare kasayi ɗo fanan kamin fo moolu ñanta alon nale mu ne ko li nga wax dëgg la sëriñ bi bindam emut si xasaayit rek waaye xasaayit bi lu muy wax loolu la nit yi soxla pour xam sëriñ taala ko be folano mu ne Serigne Touba kenn du mun a jeexal waxam. bari naata doroŋ Amérique amal yéen kii danko jee. mu ne bu mu fay jogee rek ñu woo ko Amérique. yen kili beŋola je inata doctorat fenko dinna koñin kam ye doctorat euh, certificate o dinna je na beŋo kola mu ne si woote boobu noonu si États-Unis si lañ ko joxee doctorants euh, comme diplôme mbaa certificate boobu noonu albe alquran wala siya loon mu ne ñun ñëpp xam nañ euh, e lifini alxuraan bi bindin alxuraan bi barinte be sirin be dookoo kee kan Serigne Touba le mu ne waaye moom mu ngi toog tey Serigne Touba rek lay liggéeyal o moolu min yenkil amerika iman arabu kam moy bi ka arabu safero karan no mu ne waaye ñii nga xam ne ñoo ko woo amérique ñoo ñu dégguñ arab te du ñuy làkk arab tamit sax gambiya faŋo jaatoo moolu minnu ka tubaabu safeerolu karannu wala siyaata miŋ ka arabita karannu mu ne te boo seetee même si Sénégambie ñi nga xam ne ñooy jàng tubaab ñoo ñoo ëpp dan ñi nga xam ne dañuy mun a jàng arab euh, euh, ràññee arab tamit nko Sëriñ Tuubaa la barakoo kam be alquraanu fasar la mandinka kaŋo la mu ne noonu la soññee boppam ne si barke sëriñ bi dina firi alxuraan tamit si làkki soose nga alqur'anu fasarni latin alphabet roman alphabet la kar sifafu la a kara ña anin a fasaro mu ne noonu la tàmbalee pour firi alxuraan bi si soose si ñaari làkk si si si roman eh, eh, eh, leetas yi nuñ koy jàngee ak nuñ koy firee ali amira wo ka moo taa waati jëlla ka qur'anu bee ke waña ali amira be kala waati jëlla mu ne tey su leen doon laaj foog ngeen ne pour nga bindee noonu alxuraan firee ko ñaata waxtu ngeen ngeen ko mënoon a xayma ñaata waxtu mu ngi leen di laaj loolu. mool mool bi sànjoole miira la sànjoolu mu ne xam na ne ñenn yi dinañ wax ne ay ati at la lay jël. bari wallaahi sanji kilin karse nga baam mu ne waaye mu ngi koy jiiñ ci yàlla. benn at ak juróom-ñetti weer si la pare si kaamil bi. afilulaari njàng mu bee ajala sifa. mu ne kaamil baa ngi nii tegu ku nekk mun na ko seede. Serigne Touba la ko mbe min fola je ay nte nte nte min maalon nta bee fola no nta a duntan kono ñaami nta bee fola no. mu ne Serigne Touba nu ko duggee moom du mun a nettali yëpp. bari nte sa kuma kilim faali ye doroŋ kuu fula lam Serigne Touba te. mu ne waaye lenn la leen ko wax Serigne Touba ñaari mbir la. ay yeloo soto le ay niyo soto. Serigne Touba am na deret waaye am na ruux. moolu min nu kanaaka ñim fuloolom yeloo anen niyo. te doomi aadama buy ñëw ñaar yii la am. moo nekk deret la ak ruux bi. nte taata Serigne Touba kan nin niyo la a niyo leen sabab. kaa du mbiyeel mu ne moom nag. jëmm bu mu ñëwee si Serigne Touba jëmm bu ko Serigne Touba xëccee moo nekk si ruuxam an ɗum naɗɗo kuwonte fende fof fewwo fen ni ko sirin tuwarake nin tele bolo sidala mba safela nin ñim pafe woɗlale pour momomi mo arabe karanadi sa karanno te moom it tey taxawaayam ak dundinam yëpp daf ko soñu ne lépp lu nga xam ne sëriñ liggéey sëriñ Tuubaa bu si loxoom tegoo rek moom it dina yaatal loolu firi ko ba ñu nga xam ne nekkuñ dégg dégg beneen làkk bi ñëpp mun see njëriñoo am si jàngin andum ala la maa koyroo kan ala jono ɓe tarala on sirin tubakoɓe tarala jeeɗa inchallah te mu ngi ñaan tamit ne fii ba balaa ñuy wax ay ñaari weer télévision bi tamit inchallah lool tamit ñaari semaine lool tamit dina ubbeeku te mbiri Serigne Touba tamit dina dugg si loolu nemi ye Serigne Touba muta ya mume beele muta ni bula a bee mutalal ate bee mu ne képp ku téye sëriñ bi nga xam ne sëriñ bi dina la téye waaye même yow soo ko bàyyee sax nga xam ne sëriñ bi tamit téye na la annata pour kam molle kiisandi Serigne Touba pexeem ak ñëwam yépp moo nekk ne pour texeel jaam yi a tele kaŋo mooy moo beeji tout arab kaŋo mu ne moo gën a dégg làkk même arab yi sax moo leen gën a dégg làkk kuma fula bi arab kaŋo mu ne làkki arab mu ngi am ñaari baat saaxib comme lu ñuy wax saaxib anin xaadim ani ak xaadim ay mintum bonje wonum xaadim te ñu seet Serigne Touba xaadim la tànn si loolu ñaari baat yi asaafonoon ko saaxibu rasulillah munoon naa wax ne saaxibu rasulullah asaafonoon ko xalifatu la te mënoon na tànn tamit ne xalifatu rasulullah waaye mu tànn ne xaadimu rasulullah nkana mira ko naa ko xaadimu rasulillah wala kotom ñinti ko aɓe ko on tol kat mbindanol ta ñami nkana walla waaye bu ñu dégg baati xaadim ne ñun nu ñu déggee comme mbindaan ñu naan eh, eh, eh, xaadim mbindaan bu ñu déggee baat bi noonu aka min fo wolumu kiila ñanta min ke la kiila be min ke kan ate mu wole dooku laati ala dookoo mu wole waaye baat bi lu muy tekki moo nekk yonent bi lu ko indi lu muy liggéey moom loolu la ala man sindi la Serigne Touba daal kon yal nañu yàlla booleeg Serigne Touba ah mbokk di sant di gërëm balaa balaa ñuy dellu kàddu gi rek imaam tey suñu xilifa la te tey bu yàlla defee bu fi teewee rek ekkati kàddu amuñ dara li nga xam ne dinañ ko si yokkaat waaye nag lii mooy diine lii mooy julitooyaa almuminuuna baaduhum awliyaau baadin yaamuruuna bil maaruf wa tanhawna anil munkar kon nag dañuy njëkk rek di jéggalu di baal ñëpp àq te di leen baalu àq di rafet jotaay bi imaam lu mu fi wax duñu weesu loolu lii mooy liggéey Serigne Touba waaye ñëwee fi tamit ak toogee fi di nuyu suñu mbokki daayira laa si suwet fii nii ak yeneen daayira yu nga xam ne bàyyeeku nañ si Europe bi fii ak yeneen fànn yi di rafet lool seen teewaay fii te tamit di leen nuyu si turu svenska sénégambiska bi nga xam ne mooy SSGT te nekku fi di nuyu tamit si turu GIA Gambiska Islamic Forum fii si Stockholm dañ ñëw teewe délégation baa ngi nii ñu nga xam ne ñoom lañ àndal pour ñëw rek fekkee lii nga xam ne jotaay bu rafet bii nii pour bokk kook ñii nga xam ne yëfi Serigne Touba rek moo leen ñor te si loolu rek la ñuy dund tamit kon di sant ñëpp waaye di jéggalu bu baax tamit wasalaamualeykum wa rahmatullah